maayeenu nit ñi di lekk seen kal yi di naan seen yuur gi ngeen topp di wax woy woy woy woy ñeneen ñi ko xaj diw diw diw diw diw diw diw moomu deful lu baax diw moomu amul lu def Sénégal loo xam dañ teg sa bët la sa loxo mu jaral la ngay dem di dee mu ne boo dee sa yaay juraat yeewu leen xale yi je parle à la jeunesse de mon pays waaw boobu mooy report bi donc yoon la ndax dafa a ay couac a ay problème problème bu amee nag il faut ñu wuti solution ku taxaw ni problème amul da ngay wax lu la neex ndax buñ ne yow mii may atte si yow sàcc nga xamuñ dëgg la wala déet ñu wel ba dugg am na ko am nationalité française jàll am ko xam ne amatu ko ñu dàq ko Karim Wade amatu ko am na ko si Rose ne noon naa bokk te Karim mi amatul du bokk waaw loolu loolu nu loolu dysfonctionnement la loolu injustice la ki amatul du tout mbubb français muy Karim du bokk ne Rose Wardini ba léegi France la bokk moom mu dem ci élection yi senegal kay la dëgg réewu dëgg kay dëgg di nooyee nooyee ci dëgg bañ ragal xam nga dama leen ragal billaay ragal du jam guy ragal gëmër yàlla la ragal mën na la boo amee fit xam ne yàlla rek fi nekk ku yàlla neen la doo ragal dara